ni euh, ñu ko jagleel mérité ko lool euh, di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñu permettre à ce que ñu développé. El mm-hmm. Vision Média di leen ñaanal wér ak gudd fan ak tawféex. Mm-hmm. ak ñëpp ñoo xam ne ñu safoon nañu bàyyi ñu xel ndax ñun amuñ lu dul yéen yéen amuñ lu dul ñun. Mm-hmm. kon yàlla na yàlla ubbi xéewal yi tàppe xol yi.

Ah, gannaaw bo boo demee bañ suñu borom wax ne ñi nga xam ne ni mooy waajur yi gannaaw ba ma leen waxee ngeen julli woor natt asaka mm. dem màkk bu ngeen ko amee bu loolu nga xam ne digal naa leen ko bu passé leneen li si des mooy ñi nga xam ni mooy waajur yi waajur yi nag mooy surtout waajur bu jigéen mm-hmm. ndax yonente bi moom bi ñu ñëwee laaj ko ne ko ñaar yi kan laa si war a gën a topp kan laa si war a déglu kan laa si war a mën a toppatoo dafa ne ndey mu dem ñëwaat mu ne ah dama yaakaar déggoo sama laaj mu ne aha kay ndax ñaar ñu ngi ma laaj nee naa la ndey ndey ndey ba mu ñetti yoon lu tax loolu parce que yaay danga koy tere nelaw mm-hmm. yaay tey boo demee gannaaw kër mm-hmm. ñëpp dañ lay daw sa mm-hmm. yaay la ñuy woo moo lay defar bu guddee booy nelaw boo boo nelawee ba yeewu heure boo yeewu sa yaay nelawam yi foofu lay jeexee foofu lay ay nelawam di jeexee ndax lan ndax yëg-yëg doom mm-hmm. ba jooy tamit jooy yu métti yu tar sa papa day buude mer ne mm-hmm. kaa jël sa doom ji ana moom mu mel juru ko waaye yaay ji la sëf lépp kon boo demee ba xam-xamee kooku li nga war a mën a def mooy teral ko mooy sagal ko mm-hmm. mooy jox ko wàccuwaayam ndax yowoon na ko ndax ba nga si tolluwul woon mënoo woon moom la woon dëgg la Samba Yoro damay basé wu ci li nga wax léegi nii rek parce que boo nee yaay mooy lépp tey jii da ngay tëdd ak yaay ak papa doom nekk ci digg bi ñuy nelaw nga gis doom bu jooyee papa day dangay dangay gis sax mu mer des fois jël mbaaj bi dem ca ba tëdd nga gis yaay moo fay nekk di kurci kurci pour rek bëgg doom am li ko neex parce que yaay dafa jege ci doom moo tax dangay gis faral di gis xale yi nga xamante ne xamuñu dara comme sama genre gi naan sant sax ci doom yaay sant yaay la waroon jël parce que dañ naan que ne sa papa moom ngay doon sa sant papa moom ngay jël parce loolu lañ fi fekk mais boo gisee yaay mu sonn ci doom loolu waroon nañ ci wax. waaw yaay boo gisee dañ wax seen bëgg-bëgg rek parce que métti beeg coono bi ñu daj par rapport ak ñun. Mm-hmm. waaye du kenn aussi ku góor aussi jox wàccuwaayam dañ koy jox ndax ñun tamit ah, nekk nañ ñoo xam ne lépp ñun la. ah yéen ah, dara bi ñu yeewu. lépp jigéen di dem di uti di indi di leen jox. Mm-hmm. donc taxul aussi ñu war a doyadal ñi nga xam ne ñi dañu ko dénk jox na leen mooy yéen. yéen dañu boole pour sutura. Mm-hmm. dañu boole pour ñu war a ànd. gannaaw bu ñu wàccee fii. li ñu war a delluwaat fi nga xam moom lañ soxla mooy àjjana mooy ku nekk waslu àq si sa morom ku nekk yenn jàmm sa moroom ku nekk def li nga xam ne moom nga war a def maanaam si diggante ñaar ñu bëggante mooy ñaar ñuy sëy waaw du kenn rek mooy sëy sëy bi mais ñaar ñëpp soxla nañu sëy sëy bi sëy sëy bi nag mooy dégg ndigal teg ko fi nga ko war a toog teg xam nga respecté ñi nga fa fekk muy waajur ba si dernier GV si ni ñu koy waxee bu ko defee rek ñëw ndam ngay am waaw euh, comme euh, su ma demee sama kër maam des fois fi nga xamante ne fa la nit ci di toog mooy mag ñi di waxtaan dama dem fa keroog rek fekk fa benn débat ñu naan que ne parité ñun dañ koy xeex ba tey ñoom maanaam loolu bàyyi ñu ko mu nekk suñu ginnaaw ba tey nee na ñoom dañ koy mettitlu te man je pense que ne tey jii soo jëlee parité teg loolu mooy que ne jigéen ak góor ñoom ñoo tolloo ni nga waxee léegi nii góor bu njëkkoon góor moom moo war a uti ñëw andiwaat njabootam pour xëy dem uti jigéen moom tamit donc loolu man je pense que ne tamit ñi nga xamante ne ñuy wax ci parité c'était juste un message je pense que ne tey jigéen lépp lu góor di def mu ngi koy def moom li mu daan def gis nga parité bi dañ ko jël si anam yi nga xamee ni amaana gis-gis yi day wute. mais nekkul rek ne parité la rek tolloo ngeen degré déedéet ndax aduna du neex naqari ba góor ba jigéen jiite góor. mënul ne aduna du neex naqari loo am ak loo ñàkk ak loo mën a doon. Mm-hmm. yaa ngi dégg ba nga féete kaw góor. dëgg ba tax na nag tollook moom du si am-am tolloog moom du daraja tolloog moom du leneen. Mm-hmm. donc nu ma mën a mel fekkee da ngay waslu mooy wàcce sa bopp parce que doomu aadama warul rëy. si ñaar ñëpp nag rawatina nag li mu fu mu gën a bonee mooy si jigéen parce que jigéen. tey nu ma la tey nu ma la xam nga lu tax xam nga lu tax. Mhm. xam nga lu tax ma ne fu mu gën a bonee mooy si jigéen. Mhm. parce que yéen da ngeen di liggéeyal ngir seen njaboot ëllëg. Mhm. parce que jigéen bu xëccoo kaddu góor. ba yay borom këram si kaddu lu mu wax mooy am kooku bu amee doom kenn du ko dégg. parce que fu mu dem wax tamit dañ leen ko noppil. waaye bu fekkee dafa bàyyi borom këram yor kàddu gi lu mu wax bu neexee bu naqaree mu nangul ko ko kooku doomam même bu nekkee réunion la ñuy joxe kàddu buñ demee bay tëj tant que waxul ah kenn du tëj réunion boobu te bu mujjee wax tamit li ñu wax foofu moom li mu wax moom la ñuy tenir en compte loolu la ñuy tenir en considération kon mu xam ne nangu nangu jigéen dafa war a nangu te nangu bi bu fekkee dangaa bëgg a jëlul mbaxana da ngay nangoo doon dàll waaye boo bëggee doon mbaxana bëgg a jur ah, loo xam ne suba dinañ ko dégg ah il faut nga nangoo doon dal dëgg kon Samba Yoro su ma la comprendre mooy maanaam yow d'accord nga ci parité parce que tey jii góor lépp lu muy def jigéen mu ngi koy def mais ne jigéen a xam ne jigéen la parce que àdduna du yàgg ba mu jiite si jàkk ko waxee léegi mu parce que loolu aada boo xamante ne moom lañ fekk te dañ koy nangu mais Samba Yoro jigéen tey jii boo doon décorer yow ñu jox la benn jigéen nga war ko décorer nan lay demee ak lan ngay wax si jigéen yi nga xamante ne tey jàmbaar lañu ñi may si jigéen ñi. Mm-hmm. mooy nangu seen jëkkër ñu leen di topp di leen tarbuyu tarbuyu ça ne pas dire que ne dangaa doy dool sa bopp te loolu si rëy la bokk. Mm-hmm. te doomu aadama warul rëy waxuma la nag bu ñu la dénkee koo xam ne nii dañ ne kii mooy sa àdduna mooy sa alaaxira ñun wàccoon nañu ko bu gannaaw bi ñu la ko jëbalee mooy borom kër. Mm-hmm. kooku lépp yeewoon na ko pour yow nga wàcc sa bopp tarbuyu si moom ngir ëllëg. parce que boo xoolee ëllëg doo sonn waaye bëri na si ñoo xam ne nii ndeysaan du seen yarin parce que fi ñu leen yaree ak fi ñu leen muuree joxe leen ñooñu référence lañ exemple lañ yaakaar boobu am ñu jox la ko nag yow lépp loo war a def si loo xam ne moom déglu la ko boo xoolee si waajur yooyu rek dara du fa ñaaw. mais Samba Yoro dafa seetlu que sànq ba léegi da joxe ay conseils. waaw xam nga di leen dolli sax waaw parce que jigéen matul te jigéen da waxal ma ah. importance su jigéen Samba Yoro waxal ma li nga xamante ni moom la jigéen di def si baax baax ci biir kër yi loolu laa bëgg tey nga waxal ma ñëpp xam nañ ne jigéen moo njëkk a dugg si lislaam dafa leer loolu kenn tew ko loolu moo leen may def mhm. loolu moo war a tax ñu am yërmande te ay ndey ngeen dëgg la ndey nag dañ koy yërëm mhm. ndey dañ koy neexal mhm. ndey dañ koy tarbiyu ndey dañ koy yëkkati ndax loolu moo lay yóbbu ëllëg ajana ndax loolu moo lay si sa dundin pour nga mën a réussir si bu lépp bunt boo fëgg du tëju mooy ndey gannaaw bu ndey paasee ñu ne waajur bu góor mooy nga dégg ndigalam nga jëfe ndigal bi bàyyi ay tereem waaw waaye nag bu fekkee nag yow danga ne man parité laa nekk maa yor kër gi mm-hmm. yow retraité nga sa dara motul du doo wax ma dégg doo ma tere ma bàyyi yow yaa ngi posone sa njaboot waxuma la yow yow moom pare nga mais sa njaboot ngay posone lu tax parce que suba kenn du leen dégg fu ñu war a déggee si atu mag atu atu ndaw ñi. léegi yow Samba Yoro nan nga nan nga mës a feetee si journée de la femme nan nga koy feetee sa jabar ba da nga koy bàyyi mu dugg ci waañ sama jour journée de la <laughs> femme. Ah, sa femme. ban souvenir nga am loo xamante ne moom nga daan def ci yu baax. Ah, euh, la femme daal bu ma ñëwee si ni kam ni moom la pël aada cosaan yàgg def. dëgg la ah dégg maa bu fekkee sàmmi naa. Hmm. bu ma ñibbisee jos. waaw. ñu ne suba la journée de la femme. waaw damay xool si gàtt bi nga xam ne moo gën a duuf. baabi. ma ray ko fees ko daggati ko. Hmm. ba moom boppam sax du jéem a dagg dara. du def dara daal moom day toog rek teg la taal. waaw amaana sax ma dugg si waañ toggal ko. waaw defal ko soos soos macaroni ak soos yàpp. añ bi nag. Ah, moom naa añ la ah, ah, guddi gi nag moom eh, berese laay def am nga loolu gars yi di wax berese. berese berese. Eh, berese berese berese mooy yàpp yàpp buñ lakk. mooy dressé. ah dressé. waaw dressé laa koy defal. dressé. daal di jël marinade bi mariner ko li nga. noo noo koy noo koy mariner mooy soble soble. waaw da nga koy fejjat. fejjat mooy lan mooy daggat. waaw daggat ba mu sew. waaw nga jël euh, on dirait euh, vinaigre vinaigre. vinaigre waaw. vinaigre. waaw vinaigre nga def ko si biir. def si saf safaan yooyu rek jàmba ko ba mu jàmb. waaw leen di xale yu góor eh, bu leen ko yóbbu nag <laughs> bu leen ko yóbbu de. waaw ko ba mu saf bu mu war a safee. Mm. yaa dégg de ah, nga jël euh, on dirait yàpp bi. nga jàkkase ko si biir. si marinade bi marinade bi. waaw. nga faami de. waaw yefta mm-hmm. diwlin o mbaɗa e eh, castelor jël diwlin bi nga def ko si castelor bi. bàyyi ba mu saas nga bankaan ko si biir dama naan cus cus cas cas nga yingal bàyyi ba nga xam ne ni léegi lépp ñor na nga jël ndox nga duggal ko si biir sotti si biir bàyyi ko mu tëmb nga daal di tëj bàyyi ba loolu muy pot pot si biir. ba mu ñor sa jabar daal jaral loolu. waaw journée de la femme. journée de la femme ba pare da si yàqal sa yaay. si journal de l'Assemblée la bokk moom laa njëkk a yàqal bala ñoo lek kay moom mo ñëk lek lekk ah, ah waaw wa léegi comme ça ma Yoro li mu wax ni moom néna lolu juste rek pour bigal ki nga xamanteni ni moy mooy femme la si journée bi nga xamanteni ne bu ma amee tamit lu rafet ma jëndal ko indil ko nek ah. surprise si mm-hmm. journée de la femme waaw bu bu passé nan nga ko fété non nga ko défé wala bi pour bi nga kay def pour bi la ko bii la koy def ah, bii kay yekk ñaar nawet la ko may nek bu la neexee nga jaay bu la neexee bàyyi ko si gi ndeysaan kon kontaanoon na kanaa nekk kon kontaanoon na ah. donc merci beaucoup Samba Yoro te yaakaar naa ne euh, si journée de la femme lañu wax malgré que né sax conseil yi mo ëpp wax li nga xamante ne mooy neex neexu jigen bax baxu jigen ak li nga xamante ne ñoom la jigen yi di fournir à si si société mais euh uh-huh. waaw waaw dama dama bëggoon na ñëw fofu tuuti uh-huh. kii saar yi ñu sol nañ ko baay lan ki saar mère sa jëkkër sol ki saar bàyyi ba de gooma de kii saar kay du moy ba ki saar waaw kaw ma nu ngeen koy waxee mané mère sa jëkkër gisoo mbaat. waaw lan moo tax ñuy bàyyi déedéet man moom loolu eh. xoolal damay def appel bu benn bu benn jigéen bàyyi sol baa ah, ci ci ci ci boo meree sa jëkkër day koy sol ba mu neex parce que yéen eh, loolu ngeen xam. déedéet bul def loolu loolu baaxul loolu du si yéen waaye njaboot gi la yàq. ok bàyyi leen di sol baax ok d'accord. légui merci beaucoup euh, ñuy gërëm ñëpp ñi nga xamante ne yéen a ngi toog di seetaan abonnez-vous et demandez aussi à vos amis de s'abonner parce que actualité rek lañ leen di jox ak xeeti baax baax yoo xamante ne nii moom moo leen di neex daal di leen di bégal donc aujourd'hui on parlait de journée euh, de la femme donc on vous dit juste à la prochaine et merci beaucoup